jërë ngeen jëf si seen ànd ak seen télévision nationale yéen a ngi si xibaaru olof yi li ko jiitee jëwriñ bi ñu dénk wàllu mbay mi Khadim Gueye jot na ay jumtukaay yu am solo euh, béykat yu ndaw yi nag ñoo ko moom lu toll si euh, juróom benn téeméeri million si suñu koppar loolu la jumtukaay yooyu di jar loolu nag dina tax mbay mi gën a am doole euh, fii si suñu réew Cheikh Bamba jumtukaay yi ngeen gis nag di ay matériel agricole bu am solo nguurug Sénégal gi nag daf ko commandé jagleel ko ñi nga xam ne ñoom ñoo di petits producteurs yi jumtukaay yi nag kon toll ci ñaari junni yi semoir junni ak ñeenti téeméeri us occidental ak téeméeri usine mu di loo xam ne nag dina jariñ baykat yi ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def jëwriñ ji nga xam ne moom moo di Xaadim Géey yore lépp lu jëm ci wàllu mbay mi moo ñëwoon jël si matériel bi fii nga xam ne moom moo di Pout semoir cunuwaar yi ak euh, u yi nga xam ne fas ak nag ñoo ko war a lonk boo xoolee Sénégal mën nañu wax téeméeri baykat bu nekk juróom-ñeent fukk ba ak juróom-ñett loolu la ñuy bayee te dañu ko soxla lool dañu ko laaj waa Sénégal yëpp dañu ko laaj loolu moo tax ren ministère bi def ci programme programme bi nag day continuer at bu jot dinañu def programme commandé matériel bu mel noonu pour que baykat yëpp mën ko mën ko am lu jëm ci motoculteurs yi nga xam ne tracteurs yi ñoo koy lonk dañu koy préparer ndaxte dañu war a am euh, programme tracteur bu mag boo xam ne bii ñu ngi koy séentu pour que bu ñëwee aussi Sismar mën a profiter yokk activité am pour mën a am matériel boobu nga xam ne tracteur yi ñoo koy lonk. ñetti at a ngi nii nag nguurug Sénégal tàmbali programme boo xam ne programme bu am solo la jagleel kon euh, lii di baykat yi matériel bu am solo maanaam ñu koy wax mécanisation de l' agriculture sénégalaise loolu nag dafa yokk seeni i mënin tax na rafetlu nañ li ni bokk na ci lu luñ doon xaar ndax euh, soo xoolee matériel bi ñu jébal tey euh, muy usine yeeg yi ci topp yëpp mën naa ne manqué woon na lool ci réew mi euh, tournée bu ñu def ci niveau syndicat jàppandoo fu nu dem moom la ñuy jàmbat kon bu ci ministre bi taxawee ci ndigale président bañ jot ci lii ñu ngi koy sant di sant monsieur ministre Khadim Gueye ak équipe bi mu àndal di liggéey lépp. ki nga xam ne moom moo di ministre bi di Khadim Gueye ne ngaru Sénégal nag li leen soxal moo di mbay mi jëm ci kanam euh, te li nga xam ne moom moo di bay dundee ñu man ko jëfandikoo fii euh, te lii nag kon dafay jaare ci kon ci ay jumtukaay yu am solo. lii nag matériel bi moo war a gën a yokk mbayum Sénégal parce que toll nañ foo xam ne fii Sénégal léegi mbay mi euh, ñaari mbir def ci war a dugg benn bi mooy matériel bu moderne tracteur ak équipement bu mën a gaaw ci mbay matériel bi ñuy toppatoo nii pour tracteurs yi euh, motoculteurs yi mën nañu ji cinq hectares ci benn waxtu kooku c'est très important alors que bu dee machine bu ndaw bi bi ñuy lonk ci fas bon xëy na fas bi bu xëyee suba ba ngoon pour mu ji benn hectare sax dafay jafe alors que kii euh, tracteur bi ak motoculteur bi mën nañu ji vingt hectares par jour au moins benn tracteur ak motoculture am mën na ko bay aussi le lendemain mën na ko ji ci ëllëg sa mu bay ko donc kooku c'est très important matériel boobu ci la président di liggéey pour mbay mi gën a yaatu gën a yomb beneen problème bi am importance ci mbayu Sénégal mooy ñu fexe ba ci région bassin arachidier Diourbel Thiès euh, Kaolack Fatick ba Tamba ba Kolda ñu mën di bay nawet di bay noor ba tey ñi nga xam ne ñoom ñu di baykat yi man rek sukkandiku ci nguur gi lu jëm ci ni ñuy fayee li nga xam ne moom di matériel bi maanaam nguur gi daf lañu koy subventionnel ba ñu mën cee jot mécanisation mbayum Sénégal dafa loo xam ne dafa bokk ci li nga xam ne moom moo di gowaana si yoonam boobu Xaadim Ngay yëkkati na ay gàttu yu mu si jafe-jafe yi amoon laata muy taw ndax nee na taw mi dafay jàppale mbay mi ñu déglu kon Xaadim Ngay si micro Cheikh Bamba Guèye spectre bi am na côté yu xam ni dafa excédentaire am côté yu déficitaire boo jëlee ci par exemple région Diourbel région Louga am na ci ay barab yoo xam ne yi c'est déficitaire am na aussi ba quand di dit mooy que ne li taw euh, actuellement euh, dafa moo gën a néew normal bi li taw dans les dix dernières années boo jëlee moyenne bi li taw euh, am na ci barab yoo xam ne yi li taw ren ak àgguñu ci moyenne boobu mais nag di manière générale culture yi amul problème euh, foo dem ci Sénégal euh, culture yi ñu ngi développé wu su fekkee ne mois d'août bi ni ñu ko yaakaaree ak mois de septembre bi taw na bu baax dinañu am récolte bu am solo ren parce que li ñu xool ci àll bi mooy béykat yi dañu songu mbay bi partout foo dem ji nañu tool yëpp amul fenn pratiquement xam naa sax fi mu ne càmm yi ñoom ñoo war a gën a am difficulté parce que fi ñu doon sàmmee sax dafa wàññiku dañu dañu ji partout da ngay dugg ci benn da ngay dugg ci àll bi région Fatick wala région Kaolack wala Kolda da ngay daw 10 kilomètres doo gis benn mbooy kii rek ngay gis bay nañu àll bi yëpp donc suñu yàlla dimbalee nawet bi ndox mi ñëw bu baax yaakaar naa dinañu am récolte record ren. école primaire bu Wakam Camp jox nañu ay neexal am solo loolu ko jox seen i élèves yi gën a xarañ bés boobu nag directeur école bi dafa doon dem retraite mu nekk nag bés bu kenn dul fàtte reportage Moussa ginnaaw bi ñu toogee ab at boo xam ne ñoom nag wane nañ seen xarañ ak seen góorgóorlu ci wàllum njàng mi jox leen nag lépp loo xam ne dina leen kontaanloo loolu nag moom moo taxaw na jóg ñëpp ñoo xam ne yoo nekk ci administration bi ak tamit parents d'élèves yu nekk ci école primaire bu Wakam Kan xale bu liggéeyee ba école tëj war nañ ko neexal euh, jox ko prix euh, encourager ko ndax mu continuer ci loolu gën a jëm kanam maanaam li tubaab di wax performance cérémonie remise cadeau yi dafa tombé nag ak départ kii nga xam ne moom mooy directeur école bi te mu waral a jël retraite loolu nag moom moo waral askanu wakkaam dal di jóg nag ngir ne ko jërëjëf ci nii nga xam ne noonu la yore woon xale yi. caractéristiques yi ñu waxal moom Ibrahima Niang yëpp du caractéristique modernité caractéristique tradition la ku ñemee dëgg du wor di wax li mu xalaat di dimbalante di jàppalante. xam na muy waxee courtoisie yooyu ngeen wax yëpp dafa nekk suñu aada. li ma waroon def def naa ko bon euh, maa ngi ñaan ki fiy ñëw mu continuer liggéey bi mu gën a jëm kanam. mais saa ñu ma soxlaa suñu ma ooyee dinañ ma am parce que su may xarit lañ su may naataango lañ su may lëfa lañ artist artiste yi nekk ci tund boobu ñoom tamit ñëwoon nañ teewe ci bës bi xale ya fay jàngee wane nañ tamit seen xarañ ci wàllum cosaan ak aada lépp nag ngir jaajëfal seen directeur ak tamit. seeni waajur garage euh, kii Petersen ñoom nag dañoo jóg GIE Esopor ñu ngi ñaxtu bu baax liggéeyu Pape Mamadou Sarr Pape Mamadou Sarr moo jiite euh, syndicat transporteur yi assemblée générale bu tendance CNTS FC taxawal na euh, bureau bu bees tàq moom Pape Mamadou Sarr nee na dina indi ay leeral yu wóor ci tuumal yi reportage Moussa ginnaaw seen assemblée général bu ñu amal ñi di transporteurs yi te bokk ci GIE Esopor ŋàññi nañu doxalin kii di Pape Mamadou Sarr mi nga xam ne moo yor seen GIE rawatina am na ay tuumaal yuñ ko teg. waaw li ñu booleeg Pape Mamadou Sarr dañoo yoroon benn regroupement GIE boo xam ne bi demoon nañ ba liggéey ko ba vraiment di ci jëriñu muy GIE Esopor demoon nañ ba alors. denc xaalis boo xam ne mënoon na cee dimbali mboolem ko bokkoon ci membre membre membre GIE bi. di gën a yokk euh, xar mi kawar nag mooy dañoo seetlu na ci benn jëmm jamono jël na benn oto ci suñu oto yi miite ko def ci turam pour am Kinglaw lanu may chance mooy suñu président Ibrahima dafa bokk ci commission attribution Kinglaw yi bon bi mu defee di def contrôle alors dafa jekki-jekki rek gis numéro oto bi gis turu Pape lu Sarr mu dal di ñëw nag alors da nga maam euh, informé la base bi mu informer base bi bon kenn ku ne vraiment sa xol jógoon na. kii di Pape du saar lànk na luñ ko tuumaal waaye nag nee na dina indi leeral ca bés ba. alal ji nag daa yokk waaye dara manqué wu ci daa am loo xam ne xamuñu ko te ñoom waruñu koo xam bis buñ ko waree xam nag buñ ñëwaatee siburaat lu mel ni dañ fekk na man dinaa def assemblée générale ndax dama am bu jeex fi mu su ma koy def alal ji ñu ma joxoon ña ma ko joxoon ak ñi ma gëmoon topp ma ànd man dinaa leen rendre compte leeral leen lenn lu ne fa mu nekk daa yokk waaye dara wàññeekuwu ci. Gora xumoo mi nga xam ne mooy jiite syndicat transporteur routier du Sénégal nee na affaire bi doy na waaru moo ngi ñaan tribunal mu jugé ko. léegi nag comme dossier bi dem na tribunal ñu ne na tribunal àtte bi Ibrahima Diène amee dëgg nañ ko jox dëggam mu Pape Moussa amee dëgg nañ ko jox dëggam mais tant que diggante boobu nag duñ bàyyi alal ji ak Pape Mourou Sarr mu koy def ci turam di def la ko neex dañuy bañ moo waral nag ñu tey ñu fal bureau boo bi moom moo war a bureau bu bees bu war a gérer loola doxali booba mu am bureau boo xam bi dañ ko doxal. naam dem ak dikk bi mu ngi am ci garage Petersen waaye nag coow li moo ngi door ci GIE Esopor. altine bi la catholique yi di tàmbali seen ci sa bërëb yu sell yooyu balaa ñoo dem nag comité interdiocésain bi indi na jàkkarloo ak taskatu euh, xibaar yi indi nañu ay leeral ci aj bi ñu déglu kon monseigneur Benjamin Ndiaye ci micro euh, Éric Ñimadi li ñu beesal ci pèlerinage ren mooy dinañu dem ba dëkk bi tudda Douvres ca France boo déggee Douvres foofu la pèlerinage Popenguine cosaanoo ñu bugg a xam nag lan mooy cosaanu Douve donc kon nag dinañ dem ba lu ba ba Douve bu ñu jógee Douve dinañu dem itam ca dëkku bu tudd Lisieux te Thérèse mu sell dëkkoon fa mu am solo lool ci ñun pour ñu fàttali ne e, ndesetu Thérèse mu sell mi ñu tëddee ko relique agali nañu leen fii ci atum ren ci weeru février la woon. bu ñu demee Israël dinañu dem ci benn dëkk bu tudd Taïbe foofu dinañu tase ak benn communauté chrétienne te jàng mees ak ñoom ndax sunu pelerin yi itam xam ne am na chrétien ñi dëkk ca Terre te nekk arab foofu itam dinañu tasi ak yaawur ba mën a waxtaan li jëm ci seen diine dinañu tase itam ak sëriñ ak musulman pour gën a xam lan mooy seen cosaan foofu parce que xam nañu ne ca Yerusalem am nañ fa ñaari jàkka yu am solo lool mooy jàkka Omar ak jàkka El kon nag loolu lépp lu am solo la ci ñun ma yaakaar ne daal bu ñu jógee ca pèlerinage boobu dinañu nekk ay niit yu bees loolu laa ñaan sunu borom ma bëggoon gërëm. ñépp ni ñu jàppale ndaañu mën a organiser pèlerinage bi soo gisee nag ñu mën a tëral loolu dafa fekk ñu natt ko ci lépp li nga xam ne moom la kuréel bi organiser pèlerinage bi fas yéene jox kii di pèlerin mu commencé ci dugal ko ci ay avion yu mucc ayib ay avion yoo xam ne yi méngoo nañu ak li nga xam ne kiy tukki moom lay séentu te comme ni ko monseigneur waxee am nga bu ñu jógee Sénégal war a dem France jóge France war a dem ca Israël jóge Israël war a dem ca Rome dellu siwaat France ñibbisi si wax dëgg yàlla loolu nekk na voyage bu gudd te loolu yépp ci avion lañ koy defe bu loolu wee dañu seet aussi ne pèlerins yi bu demee war nañ leen a dalal ci dal boo xam ne bi méngoo na ak fi ñu war a dalal nit kuy dem pèlerinage muy ci ay bërëb yoo xam ne yi bërëb yu set lay doon bërëb yu baax lay doon ba pèlerin bi du am benn jafe-jafe ci dalam. fi ne yem ak yéen ci xibaaru olof yi ñu ngi leen di jaajëfal seen ànd ak seen télévision nationale.